jaajëf sama gaay dal leen ak jaam ci seen seen sport tv laata ñu koy doon na dañ leen wax ngeen abone di like parce que abone bi mooy waral vidéo buñ dugal rek ngeen man ko amaan rek waaw kon bu leen fàttee abonné ngeen di like parce que loolu moo ñu yokku doole waaw dañ koy tàmbalee ak mbirum Pape Ousmane Sakho mooy international Sénégal boobu tam dugalon bi bi gëna a rëy fii ci championnat Afrique fële ca Tanzanie démb nag lan ko doon feete seen championnat bi jeexee ba joxaale ko trophée am foofu noonu accueillir ko daat koy tatagal waaw buñ fa jógee nag dañuy dem fële ci Europe di wax ci mbirum transfert waaw ñuy wax ni doomu silien boobu ñuy wax Alexis Sanchez tam nekkoon fële ca Inter de Milan moom nag jóge na foofu ak contrat libre wutali fële nga xam ne moom mooy France équipe boobu ñuy wax Marseille te Bamba Dieng fa ak Papa Gueye moom nag signé na foofu waaw buñ fa jógee dañuy dem fële ci Angleterre di wax ci doomu Allemagne boobu ñuy wax Timo Werner tam nekkoon fële ca Chelsea équipe bu Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy moom nag ji attaquant allemand boobu jógee na foofu wutali ji fële ñuy wax Leipzig di équipe Allemagne boobu nga xam ne foofu la jóge woon doog a ñëw Chelsea léegi nag moom nag Chelsea moomu mu nekkaloon jaay nañ ko fële ca Allemagne muy équipe am bi mu jóge woon mu fa jógee dañuy wax ba tey ci wàllum transfert ci championship di équipe bu Sadio Mané boobu ñuy wax Watford moom nag entre Manchester United ba tey ñoom ñu ngi négocier ci contrat Ismaïla Sarr pour mu jóge foofu ñëw foofu ñuy wax Manchester United en tout cas daal lu ci mënti am rek di ngeen ko am dinañ ci ñëwaat ci yeneen xibaar waaw buñ fa jógee tamit dañuy wax ci super coupe bi doon am tey fale diggante Espagne eh, mooy Real Madrid boobu de équipe bu boobu daje ak équipe bu Allemagne boobu ñuy wax Francfort mooy ki jël Ligue des champions bi ak Europa de League bi tey nag lan doon football seen super coupe Real Madrid moom moo remporté trophée boobu moom moo ko jël moom moo gagné deux bi à zéro waaw ki njëkk a dugal première bi nag mooy Alaba doomu Autriche boobu deuxième bii bi Karim Benzema doomu français boobu moo ko dugal waaw match bi deux zéro la jeexee Real de Madrid moo gagné trophée du premier trophée ci saison deux mille vingt deux deux mille vingt ñu leen di jaajëfal nag di leen wax ngeen abone te di like parce que surtout abonné bi parce que mooy waral vidéo bu ñu dugal rek ngeen am ko en direct di leen jaajëfal di leen gàcce ngaalaama jërë ngeen jëf وتبين النورا